may nuyu bu baax nag ña fa toogoon ñëpp papa Sala Bigué moom sama papa la mais néanmoins tooñ baaxul. Mm. Mm. ay te mm. donc ñu jàll ci information people yi ah et puis di fàttali également que ni euh, moom également ci école euh, école de euh, journalisme yu gën a mag yi. ci la jàngee su ma bindee kenn du kenn du nag bu ñu toogee ni du journaliste tamit ñun daf ñuy xaw a jaaxal parce que ah. euh, yëfi journaliste ko tax a toog fii ndax hmm. information yi muy def information people la te loolu hmm. dafay dem defe naa ni ci sama jàng bu soriwul ci wàllum journalisme mais bu ma hmm. juumul moom journaliste culturel la bu mag ah bu ma sama jàng soriwul nag ah bu boole éthique ak déontologie ah <laughs> ay ta mi ngi noonu donc mën nañ ñëw ci information Bigui itam c'est un euh, journaliste il faut dire ça Bigui il la la la jàngee am fa ay diplôme en journaliste journalisme am euh, ñëw di ko exercer ci ci télé yi dafa doy waar rek waaye moom it journaliste la boo xam ne jàng la et puis c'est normal parce que c'est hmm. nekk émission boo télé bi dafa xew nag télé fi def nag laa wax de euh. am na ñoo xam ñu ngi toog ci ginnaaw di wax c'est que daa tontul ñii mais bu fekkoon kenn tontu mooy sax su bu ñëwee ci plateau bi dañuy tontonte ndax nit dina fi def loo xam ne keneen dina ko def ñooñu peut-être bu li tax ñuy wax lii mooy bëgg nañ ñoom ñu wax leen comme li ñuy wax ñi ndax 100 pour cent buzz heure bu dawee dañ koy gis ci statut yi dañ non ñoom sax ils ont dit pour ma jeexal foofu rek man sax du may faral di tontu nag ci wallaahi man j damay wax ne dama am dama am capacité d'encaissement bu énorme Mouhamed mais quand ils disent émission yi koy def juste pour wut le buzz dañuy invité nit dénigrer ko mais yéen sans euh, ils font fi nga nekkoon ñëwal totalement le buzz nu mu tudd non pour ma jeexal rek euh, il faut le buzz yéen kan ngeen invité wul dénigré ko summi ko ba mu set gunge ko mu ñibbi il faut rappeler également que il faut le bi ngeen fa nekkoon tamit waaw justement léegi ñëwal ci information ñëwal kon jeex kon jeex vraiment maa ngi nuyu Jupiter bu baax wut leen programme nag mu gën temps d'antenne 30 minutes ci ay xale yu ndaw loolu baaxul ay ca ñëwal di ci ay xale yu ndaw yoo xam xam nga jeex na ah, nag nañ leen baal waaw nañ leen baal jàll ci leneen Safia nee na ñu baal leen Safia baal naa leen ayca ñu ñëw wax ci ki nga xamante ni moom moo di Bass Thioung Bakary ba mu mënee woon premier image Bass Thioung moom nag euh, dafa daal di réagir parce que moom itam nga fii kuñ fi tooñ nga réagir dañ ko daal di taxé daal de euh, nit ku nga xamante ni li nga xamante ni noonu la doon feccee waru ko woon feccee taxé ko def feeg ne ko euh, li muy def ku am jabar du ko def alors noonee nag la daal di réagir xamal leen ni góor jigéen du am jabar am doom benn ñaar nañu bàyyi wax yu ñaaw yi nga xamante ni dañ koy faral di yëkkati di ko teg ci bopp sénégalais ñetteel ba mooy moom il ne fait que son yàgg na liggéey lu mel nii mais à chaque fois li muy woy li muy soxla bu ko euh, laajee da ko koy jox euh, ba mu mat moom mu nag loolu la daal kàddu yooyu la yëkkati ci suñu naataangoo yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci presse en ligne bi. ñu wéyandi wax ci beneen euh, bonne nouvelle. bu tukkee ci international sénégalais boobu le di Diafra Sakho alors moom moom la di Diafra Sakho nag ñuy wax ni daal di nay takk euh, soxna ni ki euh, weekend bi euh, image yi nag gis nañu ni mu defee le tour du net ki mu takk nag di rakk ci actrice boobule di Juliana Montero Bakary boo ñu mënee woon photo yi yenn ci ay sénégalais sax dem bay wax ni moom moomu la di Diafra Sakho bii mooy ñaareelu jabaram amoon na jabar ba pare mais takk na ñaareel. góor dëgg hmm. boo amee fit. boo amee fit ci bopp mais man nag aw ma fit man même man. ñëwal ci beneen keneen koo xamante ni itam. Euh, <laughs> wax nañu wax nañu euh, euh, divorce am fan yële ñu génn waaye itam site internet yi def taxaw seetlu ci ab accouchement mu di Fama Thioune ñuy wax ni elle a mis au monde un beau petit garçon moom Fama Thioune yenn site internet yi sax dem bay wax ni ba ñuy annoncé divorce am certainement elle était déjà enceinte ñu koy félicité bu baax a baax moom moomu la di Fama Thioune. Mhm. beneen drame itam bu nga xamante ni am na sur la société dans la société sénégalaise mu di ab directeur. agresseur de société buy menacé rey ki nga xamante ni moom moo di jabaram ba jabaram daal di koy euh, yóbbu euh, euh, porté ko plainte ba mu ko porté plainte nag ñu déglu message yi nga xamante ni moom la ko envoyé na ko fépp foo mënti nekk dinaa la wër dinaa la porté plainte noonu la ñu ko daal di tëjee lu tollook un mois ferme de prison mu mel ni jamono ji ñu toll boobu le directeur de société nekk nit ku ñëpp xam site internet yi wax nañu ne dinañu ci indiwaat ay leeral ñu dem wax ci euh, IBK doomam jooju le euh, nekk fële ca Mali dëkkoon ci ab euh, résidence wan nañ ñu image yi nga xamante ni noonu la ñu massacré këram gi site internet yi daal di koy tuddee ce qui reste de la maison de Karim Keita nekk doom ci IBK mu mel ni jamono ji ñu toll Séné Maliens yi du moins dañoo dugg ci kër gi daal di koy saccagé ba dara desatu ci du ñàkk nag image yi ñu ngi noonu di poursuivre gis nañu gis nañu image yi voilà fii nii kër ki nga xamante ni euh, doomu euh, IBK boobu la di Karim Keita mu mel ni li nga xamante ni moom la ñu doon njort euh, fan yee la ñu génn Mouhamed tàmbali na def ay résultat am mu di këru këru doomam boobu nga xamante ni daal dinañu mm. koy saccagé bu baax a baax a baax ñu wax ci ci sortie surréaliste bu Ndella Madior Diouf bi nga xamante ni site internet yi daal dinañu koy reprendre mu di moom Ndella nee na Serigne Touba daf ko apparaître lors de l'installation de ses antennes Moulay Ndéla ba muy installé antenne rajoom yooyu la euh, euh, Serigne Touba da koo daal di feeñu loolee nag le site internet yi daal di taxé de ba daal reprendre l'info mu nekk nag information bi nga xamante ni moom moo gën a suscité ay discussion sur la toile leneen lu ci topp. bala ngay ñëw ci leneen lu ci topp yow ah, euh, dama bëgg xam. bu fekkee ñi ñi nekk ci presse bi ñoom mën nañ ma dimbali bu fekkee presse. mun nañu def prêt comme joueur yi ni ñu leen di abalee parce que moom dama ko bëgg def mu dem ci ndeela quelque temps <laughs> après nga ñëwaat mercato foofu waaw ah. <laughs> bañu ma loolu bu mercato bi ubbee waaw mais man ci mënuma seet nag te moom ay seetkat la soxla <laughs> ñu dem wax ci bàcc seeraas itam Mouhamed ah. daal dinay def ay accusations yu grave jëmale ko ci compéram ya nekk foofule ca banlieue ba ndax xam le na ni il a été marabouté par les lutteurs de Pikine loolu moo tax euh, pratiquement mënatul amati combat waaye itam loolu bokk na ci li tax euh, mu am ay défaites yu bari euh, at yi nga xamante ni moom la ñu génn li itam bokk ci information yi nga xamante ni moom la gën a reprendre sur la toile leneen lu ñu reprendre itam di ki nga xamante ni moom moo di maitre El Hadj Diouf alors maître nag def une grande révélation wax ni moom dafa amee woon feebar boobu la di coronavirus bi mu ko amee nag ci la daal di confiné boppam laata sax ñuy wax waxi confinement yemul foofu rek dem na sax bay wax ni moom murit sadix la waaye atum ren mi du dem fële nga xamante ni moom moo di Touba ndax bëggul exposé boppam à cette maladie dem sax bay sàkku ci sénégalais parce que ñu toog bañ a dem fële ca Touba Mouhamed. dégg moom bu dem am na droit bañ a dem moom mais na ko jàpp mu téye ci xolam ah, mu toog këram màggal mais pas nga publier que ni euh, waaw pas nga publier que ni coronavirus bi nangam nangam pour aar bopp du dem Touba te seen kër a lu ci mën am daal moom maître El Hadj la wax ñu ñëw ba tey wax ci ah dafa du jëwriñu daayira ah, bokkut ci daayira ah, moom yéen ñaar man maa wax man moom maa wax ak maître directement ah, voilà mais bu mu wax kenn bu mu moom bu mu màggali na toog plutôt Mbaye Niang nekk international sénégalais moom nag daal dinay accueillir son deuxième enfant kooku tudd Farel juddu euh, niki euh, barki démb moom nag ci page Instagram moom la ko daal wax ne il est très heureux son deuxième enfant alors photo Demba Guissé itam yi nga xamante ni moom la euh, xëblu woon ba xëpp def yaramu neen duggoon ci benn euh, euh, baignoire daal de nañ ñuy révéler la face cachée derrière ces photos loolu nag nekkul woon leneen lu dul tournage de clip boo xamante ni je la tudd moom Demba Guissé doon ko amal ñu ñëw peut-être ak ñaari vidéo yi nga xamante ni moom mooy buzz du net mu di vidéo bi ñu xëyee digante démb ak tey ñaari présentatrice yu nekk télé bi nag leerul yu nga ay greffage ko dem seetaan ñëwaat pour yeggali ak vidéo bi ci des jeexal. fekkee ba déwénati ñu daal koy fekkeewaat. ci ma wax. moom non non sànq ba tey bu dëgg fa nekkee fii dañ koy wax. sànq ba tey non xam nga lan la wuy non du ma may ma wax topp di wax nii rek eh, eh, moom. xam nga lan émission bi moo ko ko eh, kase wuy ma bétti damaa bëgg nga may ma sama jàmm yow li ma toppee dinaa ko xam yow li la la eh, eh, yow may ma amoo loo wax wuy ma ma xam nga ne nga ne émission ma dama ne émission ma ko ne waxal yàlla di fi nekk ngay toog seen digg bopp yi ma ah. la rek photo dama lay dóor ba toog sa kaw waaw lay xool ba xam ne man di ma dóor man jàpp naa waaw. voilà eh, ñoo ko gisandoo Mohamed turu télé bi nag leerul mais xam naa si internet yooyu di def direct la ci benn direct daal émission bu doon def ñii nag daloon nañu wane may de eh. daloon nañ surtout que kenn ki biti la tudd moom à tout moment ki ci des mën a ma maman man dama jàpp man dama pour man sax maman ak biti la si que soo appelé ko yi <laughs> <laughs> sauf que ni ñoom nag duñu xuloo duñu xeex yi tamit donc mu ah, dañu noonu nga jàmm moom dafa am ci kër gi mhm. <laughs> voilà ñoo ko gisandoo lii nag bokk ci vidéo yi nga xamante ni moom la ñu gën a reprendre sur la toile bi ci euh, euh, mujj nag moo di vidéo Ouzin bi rek ak Biggi Mm-hmm. ak 100 pour cent bés gis nañu itam ni ñu ko reprendre je pense que jarul sax ñu ci ñëwaat ndax loolu moom. buñ ci ñëwaatee du yàq ñu du ñàkk ñu ubbil ñu temps d'antenne huit heures ba minuit nag. <laughs> waaw. ayca donc information yaa ngi noonu euh, information people yi gënoon fës ci weekend bi. Mm-hmm. moom la leen Nafissatou Dieye andil euh, tey ci altine gi donc bala ñuy euh, dem playback du jour en attendant ñu koy kale ci.